salaamaaleykum Diourbel salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum West Africa salaamaaleykum worldwide yéen a ngi seen émission kàllaama hip hop ak Mamel Kàggu ci seen site internet Baol Times TV ak Mamel benn ndaanaan boo xamante ne benn artiste boo xamante ne nii débuté na carrière am à Diourbel juddoo Diourbel yaroo Diourbel màgge fi dëkk Grand Diourbel donc commencé carrière am en 2015 participé compétition bi nga xam ne récemment moo mujj mooy follow up tam ci ay concours yoo xamante mooy musique jeunesse avenir jël ko participé ci ay Oscar jël ko organisé def ay organisation yoo xamante ne nii Diourbel ñëpp xam nañu ko kooku mooy Manzo Killa Manzo l'avancée de Grand Diourbel Manzo na nga def. yeah moom leen kàggu maa ngi fi maa ngi yàlla maa lay di bëggee gars yi ñuy suivre à ce moment di leen wax it's Manzo from GD from Diourbel di leen bëggee di leen wax teel naa tey seen émission BTV fas yéene yaatal yii yéen jaajëf. ok Manzo dañu gis ne Manzo sa biographie biñ jot ci yow da nga ne. dëgg débuté sa carrière en solo ak bokkoon nga ci benn groupe boo xam ne jot leen def sound. waaw mun naa ni bokkoon naa si benn groupe mais duré wu ma en fait ba may débuté sama carrière comme jeunes yu bëri ni ñu koy defee ngeen nekk ay boy gis peut-être ay grands yu rap mu leen ngeen ni da ngeen di rap par la demee woon mais par la suite ba ma ci nekkee commencé di débuté di def ay son gars yi commencé di apprécier euh, si laa mujj jël sama carrière def carrière solo. nekk ci sama woy gëm ne affaire bi ma ci avancé mën na mën na continuer quoi moo waral ma def carrière solo. ba tey ñu gis benn innovation boo def wala benn loo xam ne apporté nga ko yokk ko quoi muy instrument mbalax instrument traditionnel yi nga xam ne moom ngay jël di ci posé quoi. lan moo la influencé ba nga ba ngay def loolu. waaw li ma influence mën naa ne leen la ko parce que man avant may rap ab ba may rap aussi gars yi muy gis yëpp benn benn benn xeetu musique nañu def quoi en fait li kii di def la kee di def. te man muy si rab muy si leneen man dama bugg lu may def rek man ma am loo xam ne ni esprit créatif lay doon loo xam ne man sama yëf bopp laay fexe mun a indi ko ba ma aussi defee ay recherche xalaat ni comme ko gisaguma man sama génération ko ko fi def man ma jël ko imposer ko ba gars yi tey nangu ko ba gis sax ay nit ñu may toppandoo di def loolu noon tey. ok ba tey ñu ñëw si tamitam Manzo. Mhm. nga nekkoon Kaakaare. waaw ñu gis ne Manzo nekk tey bi mu njëkk a génne. Mhm. vol bi nga xam ne mooy moo génn kaakaara la ko defee après ñu gis Manzo ci yeneen saa yi nga xam ne moom la mujjee génne Joobe classic record ak man Manzo record lan lan moo xew seen diggante yow ak waa kaakaare yeah d'abord maa leen salir pachage kaakaare piis nañ am ay relation yu nice nañ am c'est vrai parce que sama nettee fa laa woon mais aussi sama nettee bu ma ko fay joob man maa jëloon initiative joob netteeb ak ñoom ko man maa senti doon def ak ñoom netteeb moo tax taxoon aussi moo def foofu noonu netteeb musique carrière nekkul da nga war a jam benn ici même mën nga bokk benn studio mais teewul boo amee envie def feneen sound da nga ko mën a def looloo waral tey may def ay classique di ko di dem di prise di aussi prisol sama bopp parce que man gëm naa ne te aussi bëgg naa suba man ma yor sama studio bopp wala sama label bopp di mën a joobal sama bopp quoi moo waral instant muy débuté si yooyu noonu continuer ci Manzo ak xale yu jigéen yi Manzo ak public bi nga xam ne ñoo koy topp fu mu jëm assisté naa ko seetaan naa ko ay concert yu bari muy def show mais dafa am benn public boo xam ne c'est spécial et que c'est propre à lui quoi secret boobu noonu pour nga am public boobu leen téye lan mooy secret boobu noonu. <laughs> pour man amul secret quoi en fait man si li ma jàppee ni laa amee loolu mooy door rap quoi bu dul rap tamit aussi ni ngay dundee ak ak nit ñi surtout loolu noonu parce que da ngay gis rappeurs yu bëri pour ñoom dañu aay dañu war a jaay nit ñi. preg wala dañ leen war a ni ñoom instant nañ alors affaire bi nekkul foofu quoi parce que yow ñi ngay jaay preg ñi ngay jaay ne instant nañ suba boo soxlaa concert ñoom ngay soxla ñu dagg boo génnee album ñoom ngay soxla ñu jënd kon le maximum mooy nga fexe yow am ak ñoom relation bu nice bu suba ñu mun loolu noonu si wéy boobu laa nekk moo tax peut-être gars yi di ma tëgg mais xale yu jigéen yi waxuma secret bi parce que jigéen rek laa dégg ñu koy déglu ñoo koy topp. non <laughs> pas xale yu jigéen quoi en fait xale yu jigéen ak xale yu góor yi mag ak ndaw. Hmm. parce que musique moo demee noonu quoi musique yëg-yëg la rek xale mën na ko yëg góor gi mën na ko yëg jigéen mën na ko yëg peut-être je pense que man li may def moo leen neex moo tax ñu fil ko mais <laughs> amul leneen quoi pour man. man soo selon toi hip hop Diourbel mu ngi dox wala doxul. yeah question bu ma am habitude di ko répondre si rajo yi ak si yenn lieux hip hop Diourbel si benn côté je pense mi ngi dox parce que boo xoolee boo comparé ak bu njëkk booy tey da leen di dégg ñuy wax ay EP ay maxi di ko génne fii au niveau local si domaine boobu mi ngi dox quoi mais si beneen domaine bu mu doxul mooy euh, je pense ñi ko diriger noonu les dirigeants quoi en fait. Mm. ñi nga xam ne ñoo si yàgg nekk. les dirigeants comme ñan. les dirigeants moom peut-être mën naa bañ a tudd tur mais ñi nga xam ne ñoo fi yàgg a nekk tey moom nañu ñoom la ñuy wax pas rappeurs yi quoi mais acteurs yi nga xam ne peut-être ñoom ñooy xool concert yi ñoom ñooy xool émission yi du je pense que foofu la desee ko parce que pour man. Mhm. rab Diourbel li ko xaw a mooy dafa bëri ay clan quoi ay clan clan clan kii bu bokkee si boo xam ne ku bokkul si clan boobu noonu mënu ko am te man gëmuma loolu quoi man je a a gëm sa bopp nekk si sa wéy quoi am ak relation ñëpp relation bu nice je pense que loolu la quoi mais ay affaire de clan wala kii sama boy la loolu bu fi dañoon gëm naa ni dina gën a dem quoi mais ci li ma gis euh, gars yi ñu ngi nga gis ne moom la ñu war a def pour hip hop bi gën a avancer quoi. yee selon moi li ñu war a def mooy euh, ñi jox underground respect ko tey ñi woowee booy waaw parce que le moo booy bi man je pense que ça n'existe pas quoi job moo am solo quoi muy grand bi mu nekk muy booy bi ku job respect bi nga yelloo dañ la ko war a jox quoi ban sama bopp laa ko jël parce que moment yi ma toll nii bëri na ñoo xam ni peut-être duñ ma woo seen concert wala considéré nañ ma ko en fait parce que ñii da nga leen di gis ñu ni noo booy bi. boo ko woowee sama concert peut-être mën na def man selon moi loolu laa ko jàppee quoi mën na def tey lu ma dul def te pense que affaire bi nekkul foofu parce que man samay début dafa métti temps may njëkk a rab dem par exemple ñu woo benn incense ñëwul ma yëg doo à la di ba commencé di jot invitation kon aussi bu ñu nekkaatee di pourvé ba yàlla na ñu jox respect boobu quoi nañ jox respect. mais dañu gis dañu gis lu mel noonu ci concert express bi mujj quoi Manzo joué après mu am ay ay polémique lan woon en fait lan moo xewoon. waaw bon musuma recevoir contact express si concert te je ne sais pas lan la am naa ñoom de bonne relation muy ñoom ak muy ñeneen quoi bëri na ay concert yoo xam ne nii duñ ma ko gis te pourtant aw ak kenn problème ñoo di ma kenn leneen mais yow booy xool doo xam lan la quoi en fait hmm. je pense que gars yi man si ma ko considéré quoi bëgguñu kuy def lu nice wala bëgguñu aussi kuy avance parce que man maa ngi sama wéy di job jox naa respect ñëpp kon bu concert amee woo ñu man Manzo leneen la ko mais du du jaay rek wala du booy bi dafa réew wala du genre. gis nañ ah nga yàgg a annoncé pré album boobu ba léegi mu ngi bëgg a def benn temps lan moo téye liggéey bi. waawaaw parce que ba may génne nit tëb huit mois laa amoon si game bi def huit mois ma tëb ni damay génne nit tëb par la suite man damay génn par album quoi mais période yi bokkuñu moment boobu ma tolloon noonu peut-être loolu rek laa gisoon mais moment bi ma toll nekkul dama war a génn pour génne. man su ma demee tey bay génna war naa am loo tax ni war naa am lu tax loo xam ni dama ko su ma ko génnee dina ni lii la Manzo indi Manzo lii la joob mais duma ma génn génn pour génne ko instant yi bëggoon naa ko bu yàgg mais dama ko dencaat gën a joobaat parce que bëgguma génn loo xam ne day génn tey naa tey lu luy génn nekk au niveau national quoi parce que combat bi nekkatul local pour man. ok selon toi dañ la dañ la siiwul flow mhm. donc pour yow lan moo tax ñu éliminer la quoi. waaw dapp avant flow avant ma répondre loolu avant flow up na récemment benn concours bu ma gagné woon fii musique jeunesse avenir aussi am na benn Oscar bu ma gagné woon fële Mbour mhm. flow up participé naa si bi mooy sama première participation ci flow up waaw dama déposé bi bi lañ ma njëkk a jëlee pour ma ma ma ma participer si léegi dama demoon qualifié quart de finale mhm. ma dem quart de finale qualifié demi finale mais flow up dafa nekk loo xam ne nii rab kese jëlatu ko quoi en fait boo fay dem dafa laaj nga pare ci domaine yëpp mu ci moyen ci yeneen domaine yëpp nga pare mais ñun je pense que si li ñu éliminé bokk ne si côté moyen quoi parce que ñun ba ñuy dem même car bu ñu yóbbu sax problème la si ñun gis nañ quelques autorités am na si luñ ci jàpp ñun aussi suñ poosu bopp lu ñu ci jàpp mën a teg benn oto bu ndaw mais je pense que suñu éliminé Manzo nekkul si domaine rab mais si côté public bi moo doon a yóbbu ak mooy président Sénégal bi laa joon te indi woo je pense que si côté boobu noonu nañ ko éliminer te autorité bu ñu defoon loolu je pense que loolu du euh, man dama jàpp ak sama analyse ma def ko mooy répétition moo la moo la moom moo tax ñu éliminer parce que centre bi nga defee sa inscription. centre boobu joué ko première première première cop kii bi. seen yi mhm. donc même centre yooyu tam moom nga répété waat ci sa deuxième scène bi nga qualifié en demi-finale. waaw non am na différence parce que euh, quart de finale maa ngi bàyyi la ñu six ak sama yëf bokk. Mhm. Euh, demi finale maa ngi joué trois son premier bi tam la Baobab di bi aussi mhm. bi ma joué ko plus remix bi ma mhm. boole leen ñaati benn son plus xon sama yëf bokk kon son am na différence quoi parce que bële ñaar laa dóoroon te bii ñett laa dóor te am na différence. ok mais ba tey dama jàpp ne mooy répétition bi ma lay wax parce que tey bu ñu déggee titre sound yooyu rek ñu ne moom nga joué moom nga joué woon moom bu ci jury bi sukkandikoo rek mën na la éliminer directement quoi parce que tamit lu toll ni compétition bu toll noonu nga nga même sound tamitam je pense loolu mooy li nga xamante ni man sama point de vue la ak sama analyse pour man loolu moo tax ñu éliminer la mais du côté seen parce que ñi ñi la ak ñi ñiy gis vidéo si internet bi du côté seen moo la daaneel mhm. du côté prestation moo la daaneel mais répétition boobu pour man moo la daaneel d'accord ma à 100 pour cent quoi ni répétition yooyu moom peut-être nag parce que ku ne ak ni ngay analyser ak ni ngay gisee peut-être loolu aussi mën na si contribuer mais bu amee tey lu may rectifier wala leçon yi may retenir ci flow up mais peut-être su may demaat xool ni may taxawee ba mun a am lépp lu ma soxla avant may dem aussi moyen mooy mooy moyen rek lépp la globalisé. Mhm. mooy man je pense que moom mooy principal problème bi bi tax tey jàlluñu final flow parce que ñun le maximum defoon nañ ko. pour condition bi ñu ngi doon def ay entraînement pour public bi dem gars yi même jour ba ñuy dem am na ñu bëggoon dem hôtel fees mujj ñu dem mairie nu te loolu noonu ce n'est pas de notre parce que ñun def nañ ay demande dem nañ ci mairie bi dem nañ ci ay autorité dem nañ ci feneen ak feneen mais luñ bëggoon te ci région de Diourbel la ñu représente tey bu Manzo gagné woon dañ naan Manzo from Diourbel. Mhm. que je pense que le maximum c'était suñuy dem lu mu bon bon benn oto wala benn bus nga xam ne suñ public bi ñu war a pour ñu gagné flow up dinañu mën a accompagner. mais malheureusement amuñu ko mais aussi demain loolu ja def nañ ci jàngat suba bu ñuy dem dinañ gën a pare ci coté boobu quoi. ok Mansour bu ñu doon def tàggatoo last work bi lan lay doon quoi. waa last work ak lan mooy projet yi fu mu toll pré album bi nga wax ñu exactement parce que dañ ñuy wax rek raison yi tax nga nekk ci job bi ak mu jël temps mais kañ lay pare exactement wala ban date la ñuy xaar sorti pré album boobu. waaw pour l'instant mënu ma la wax date exacte parce que pré album man ak samay propre moyens man maa maay dem si studio bi prise dem si si studio bi prise loolu noonu mënu la wax date exacte bu muy génn quoi parce que dama koy tàqale te aussi comme li ma la waxoon sànq si début bu bëgguma génn génn pour génn bëgg naa tey su may génn génn loo xam ne ni ñëpp nañ xam ne man soo génn loolu aussi bokk na si li ko redaate sama lat su woog mooy di la bëggee di bëggee avant la su woog soo kees yi ngay wàcc parce que gis nañ man soo ci réseaux sociaux yi muy def ay waa récemment même tey jii rek am na benn concert mu war a def su ma jógee fii nii au centre polyvalent aussi maa ngi wàcc benn showcase fii nii Balkan mais pour l' instant jàppaguñ daj parce que am na yenn affaire yu ñu war a joobaat ci suuf mais pour côté show benn show boobu nañ pro programmé gu pour son ñu ngi wàcc ay son fii dans quelques semaines ah, dinañ gis ay série de freestyle yoo xam ni dinaa ko indi dugal chaque soit quinzaine wala vingtaine jours boo xam ni dinaa ko indi dugal di pour l' instant ci foofu nañ tollagum waaw mhm. di remercier gars yi di remercier ñuy seetaan di leen wax c'était Manzo nañ ma xaar maa ngi ci ay affaire gars yi yàgg a wéet nañ gën a wéet xam ne affaire bi mi ngi ñëw léegi di leen jox respect c'était Manzo kii la jaajëf ok di bëggee di bëggee tamit tam aussi sama gars maam Cheikh Mbaye mi nga xam ne nii sama camarade de classe la woon depuis 2006 mu génn mu créé benn groupe WhatsApp boo xam ne ñun ñu doon jànge sem kër Cheikh de yëpp la di bëggee waa sem kër Cheikh de yëpp tam di bëggee Papis sama réalisateur bi di bëggee ñëpp internautes yi nga xam ne ñëpp ñu ngi seetaan Baol Times di seetaan BTV ñu ngi leen di jox dig daje